Euh, sëriñ bi yow mi fi toogal famille Omar yéen ñoo ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di lay ñaanal yàlla guddal sa fan te wéral sa cër eyi bandiraɓe ko monsieur le ministre haalata o wi caggal yettude allah e julde e rasulu sallllahu alayhi wa omo salmina bandiraɓe ɓe kala omo idoro noon e salminago he yettude e juurade e salminde cheikh oumar foutiyu cheikh oumar noon sen noon woni ceerno makki omo rokka ɗum gueɗal mum omo joƴƴina ɗum e place mum ko haani handi e wiide ɗum bisimilla sabu so neɗɗo are fuuta enen fof eɗen gandi ɗo cheikh oumar wayi e afrique e, bomo ko nuyoɓa pare manci tek o wi so salminima howo paari o fawa hen somo kilifa bi nga xam ne moo toogoon sama wet te bi may dugg muntaga présenté ma ko o wi kilifa makko oɗo jooɗinoɗo sara makko mo muntaga waɗimo présenté ni ma bés bi yépp moo ko waral o wi ñalawma o fof ko on woni sababu mum woni ceerno mouhamadoul mansour waaw ma nuyu président conseil départemental o wi o salmina président conseil départemental waaye nag ma nuyu ki nga xam ni kii booy dugg ci dëkk moom moo lay dalal muy seen maire le directeur général du port autonome de Dakar Mountaga o wi o salmina mawɗo men mamoud dia mo ganduɗa ko kañum woni président conseil départemental mo podor e wasde yejjidde saabu eɗen gandi wuuro so tawi a hen guidotoɗa salminde ko joom wuuro saɗa naata suudu natirta ko baafal ɗum noon o salmina muntaga en tant que maire hayre ma nuyu tamit honorable député yi nga xam ni fekk leen fii o o salminoro honorable député ɗi o ɗo ñoo xam ne ñi bokk nañ ci assemblée nationale o wi ɓe ngannduɗaa ene njeya e assemblée nationale ñeneen ñi tamit suma ay xarit lañu o wi heddiiɓe ɓeene ko musidɓe makko euh, sama ñëw fii tey nag o wi makko hannde noon ɗo dama fi ñëw ci ñaagi casquette o omo ari ɗo e kufneeji ɗiɗi ndax ñëw naa fi comme membre du gouvernement o o ari ɗo e kufne gadano wonde mo membre du gouvernement woni yeedemo e gouvernement goɗɗo hannde e leydi sénégal o représenté fi euh, monsieur le président la république monsieur le premier ministre ak membre gouvernement bi o waɗi ɗo représenté président de la république woni makkisal e chef de gouvernement woni amadou ba ko ɓen goni ardiɓe leydi ndi hannde o arani ɗumen ɗo euh, bu ma ñëwee fii nag tey o wi so ari ɗo noon hannde mbo weeso cegu membre du gouvernement o so ɓenni geɗal wonde membre du gouvernement damay ñëw fii tey sant yàlla o wi o arat ɗo hannde yettude joomiraaɗo subahanahu wa taala ndaxte boo fekkee da liggéey ak nit o so tawi aɗa liggodoo e neɗɗo muy muntaga si woni muntaga mu dem ci diiw ñaari at o yaha kene tolno e duuɓi ɗiɗi te biñ leen di dénk liggéey bi mu nekkoon ci diggante bu metti o wi tawa tawande ndesnata ɗon golle ɗe nde wonno koye sahaa kaamniiɗo muusɗo gërëm naa ko ci bureau am o wi o e nder bureau makko gërëm naa ko ci sama bureau o yettiimo kanko muntaga kadi e nder bureau makko gërëm naa ko ci pré kanamu président de la république o wi o yettimo yeeso président de la république ànd nañu liggéey ci kanamu premier ministre ma gërëm ko fa o oh, wi ɓe jaadiɓe liggodima yeeso premier ministre o oh, yetti muntaga e dow premier ministre waaye gërëm bii ma koy gërëm tey moom laa gën a xam ni mooy bi nga xam ni moo ci gën a am solo ndax maa ngi koy def ci ay mbokkam o oh, wi omo yettamo noon yettago heerigo saabu omo andi ngoɗo yettago woni ɓurgo faayodinde e jettali ɗi o yettannomo kala saabu o yettatamo dow bandiko en li tax ma koy ci ay mbokkam o wi holko waɗi omo yettamo e nder bandiko en seen doom ji di muntaga si o mon ngel woni muntaga ci kattanu yàlla o wi e baawɗe allah ñaar fukki at ak yi weesu o wi duuɓi sappo e ɗiɗi ɓennuɗi lépp loo xam ne lii mën nañ ko teg bët o wi kala ko ganduɗa ɗum ɗo koko fawoto yitere boo ko joxoñee kenn du ko weddi o so tawi a joobima ɗum tawa hay goto yeddata muy autoroute à péage o wi woni autoroute à péage muy terre o wi woni terre woni laana jordi ka muy brt o wi woni brt woni lawol bis transit rapide bisuji de dakar o wi e ittude faaɗo faaɗo gonɗo e nder port dakar loho migi cici kattanu yallah o en hen e bawɗe joomiraɗo lool bu ko yàlla defee ci benn nit o wi ɗum so allah waɗi ɗum e dow neɗɗo gooto buñ ne macha allah o wi eɗen poti wiide allah war na bu ñu ñëwee ci mbokkam yi représentant gouvernement fesal ko o walla so tawi en ngari e représentant ji gouvernement ɓe ganduɗa ɓeɗo ko ɓe tengtina tawa koye jeese mumen loolu daf ko liggéeyal sénégal o ɗum kanko muntaga ko baɗanɗo ɗum sénégal mu am leneen lu mu liggéeyal Sénégal nga xam ne maak moom ñoo ci ànd di ko liggéey o wi ene jogii goɗɗum ko liggani sénégal tawa ko kanko e muntaga mbaddi ɗum bu ñu waxee dëgg rek o wi so tawi en kaali goonga tan septembre 2022 o wi septembre lewru wiyeteendu septembre e 2022 ne xam na li port di représenté ci dëkk o wi enen fof eɗen nganndi holko port nafata e leydi lu muy représenté ci économie dëkk o wi holko nafata e juɓɓudi leydi bu doxee dëkk dox na bu nërmeloo dëkk nërmelu na o wi enen fof eɗen gandi port so yeehi no foti yaarude ni leydi moƴƴi so port boni eɗen gandi leydi boni septembre 2022 o wi septembre bato bateau duggul woon nu mu ko neexee ci biir port bi o wi hay laana ndiyam mawka bateau naatiraani e port hee no yiɗirti ni walla no fewnitoriiɓe ni génnul tamit nu ko neexe ci poow bi yaltiraani kadi no welti ɗum walla kamɓe no ɓe jiɗiri ni situation bo bu continue on pénurie dina am ci réew mi o wi ɗum so continino ma yahanno ha addoɓe ɗen laaɗe calo laaɗe mumen ngara ɗo sabu eɗen gandi laaɗe ɗe ko temps contata kañumen ko par heure uji joɓete minute aji joɓete so tawi soɓe ɗo aɓe perde temps taw alanaɓe gartam ɓe goppat ɗo ɗum noon président de la république woman nommé ma ministre des pêches et économie maritime président de la république noddimo waɗimo gardiɗo kala ko faari e ndiyam e leydi he e ngawa munima dina nommé ci biir port bi koo xam ni kii di ngeen mën a ànd liggéey ndax jàmbaar la o wii kanko président o wiimo mami noddane neɗɗo gooto mi nomamo e nder port he liggoɗo ɗon sabu mbeɗa anndi on ko jambaaro mu ni situation po bi may naa leen ñetti weer ngeen defaral ma ko o wi pooro no siforini mami rokku on lebbi tati pewnitanoonmi ɗum ci 26 jours e balɗe nogas e jeegom muntaga déconceté no port dakar o muntaga régli port dakar loolu am na lu mu liggéeyal réew mi loo xam ni moom sax xamu ko o won ko muntaga ligge e leydi he tawa kañum e hoore mum ni annda ɗum newma directeur général yebde moci gën waxuma lool de o wi o wiyani directeur uji général ɗi fo de muntaga ɓuuri ɗumen wawi bo directeur généraux yeb melonde moom sénégal jël o wi kono noon omo wawi wiide kam so tawi directeur généraux ji ɗi fo mbano kono makko ni tawanno sénégal diwiɗo waaw suma aqulay lay waxe o wi o haaldata noon kadi ko allahu subahanahu wa muntaga o wi muntaga fiiji siddigo mbok o wi e nder bande en président de la république président de la république premier ministre premier ministre ak man mi nga seqal liggéey ci secteur bi o e kanko mo ganduɗa ko an e makko ndendi liggéey o e domaine mo gonɗon o ngi lay feddali suñu kollëge aɓe kesɗitan ma ha joni hoolare mabɓe e ma di feddali suñu xarit o e tengtinde cehilagal kadi gonnogal hakkunde moon di la feddali tamit àndandoo bi ñuy ànd gis nañ ci suñu bopp o wi kadi aɓe ciftinma wonde jaadigal ngal jaadoton ngal aɓe jii hen koye mabɓe ah, bu loolu wéyee nag o wi so ɗum ɓenni noon waxtu baa ngi gudd te moo tax duma mën a wax li ma sama xol o wi waktu o nana ɓitta en kono noon wonko yinno haalde e nder fittandu makko ha heewi kono noon omo andi saaha o ene wawi wonde faaɗa seeɗa tawi laamu so ñaw aya o wi ko hande o meeɗi arde hayre e laaw muntaga motax o wi woni sababu o ko muntaga ak ziyar bi ngeen fi def e ziyar mo mbaɗaten ɗo o pour mouhamadou zeyn biɗi dini ba dini ba pour ñu sakku ñan o wi eɗen ñaagui ndax fii boo ko xoolee nit yàlla rek ñoo fi toog o wi sabu ɗe nde ɗo jonde sa ƴeewi ɗum tan aɗa ko yimɓe allah meɓe jooɗiɗo bu ñu jëlee suñu sakku ñañet teg ko ci loxo représentant famille Thierno Mountaga Tall o wi so tawi en ƴetti hono ñaagule men e dowuji fof en pawi ɗum e ummiɗo galle khalifa men galle ceerno cheikh oumar foutiwu tall amin la ñu mën a wax ndax xam nañ suñu ñaan nangu na ba pare o wi ɓe mbiyata tan ko amin sabu aɓe gandi on ñi nekkoon ayeelaaw avant Mountaga di ñëw ak ñi ñëw ayeelaaw tey bi fi Mountaga ñëwee ngeen xool o wi yen ƴeew wonnooɓe ɗo hade Mountaga arde e nde Mountaga ari sahaaji ɗi no seerde yen man olof laa te olof nee na o wii kanko ko jolfo te jolfuɓe ene mbiya olof nee na lu neewi ci loxo ya wone sa bopp o kala ko ɓuuree junngo ko joomum toppiranto hoore mum ayga laaw min ci yon o wi noon nana fawe dow laawol te bala moo egg fa mu bëgg egg o wi hade mum noon yettaade ɗo yiɗi yettaade ɗo li fi de la république liggéey ci sénégal o président de la république liggiiɗo e sénégal mu ni sama liggéey dama bëgg mu continuer waat feek fukki at o wi jinmi ko liggéeyam o continua ɗo e duuɓi sappo équipe bii ma àndaloon di liggéey o hono fedde nde o tafno omo wondi e mum aɓe liggoo nde te ñu waxtaan suñu biir ba jiital le premier ministre amadou ba o wi ɓe jewhide e koye maɓɓe haɓe nanodiri aɓe gardina amadou ba woni premier ministre jàppale leen ci yéen ñëpp ñu doon benn ngir sama liggéey continuer pour njariñu senegal o wi yen mballodir jaggodiren hen mate liggéey mo yiɗani leydi ndi e moƴƴere mate allah ene waɗa ɗum yarano foti yaarude ni taw koye juuɗe amadou ba mate ne wona nafoore sénégal ñi fi jël parole yépp dégg naa ñu wax président la République dégg naa ñu wax Amadou Ba waaye tukulóor lañu ko wax o wi ko ƴettiɗo konnguɗi ko pop kaali o nani kaali makki kaali premier ministre kaali amadou ba kono kamɓe fof ɓe kaali ɗum koye fulfulde ɓe kaali ɗum koye pular man lima wax ci olof mooy o wi kono kanko o waawi haalde wolof bu ñu bëggee naataange gi nga xam ne moom la sénégal dëkmal ak pétrole ak gaz nañ ko teg ci loxo yoo xam ni xam na état xam na réew o wi sénégal ɗo tolni hande ɗo woni koye jombaw woni koye jombaw walla mbiyen tolni koye ƴamede te wonko yiya e ƴameteɗo o wonko feeñe e leydi he ɗum meeɗa ɗo feeñde ko joni ɗum feeñi ɗum allah feññini ɗum koye saaha laamu makkisal liggama hen ha heeɓi won on nokku so tawino ko guesa wiyete hurnama ha ala ko heddi so wona ene jogori soñede colli kewɗi noon gari juurima nana gone dow leɗɗe pay koye he yen mbatten haqqillaji ƴetten lottuli men ƴetten karbaji men ƴetten daaɗe men gullen mate ɗin colli ene jaaha mate guesa ba eɗen mbawa ɗum naftorade saabu enen foof eɗen gandi afrique tolninoma e saaha nokku foof ene wiiya yo wayloji mbaɗa kono kala ɗo waylo wayloji mbatno ko bojji tan daña ko musiba ɓolo daña en jii mali en jii libi en jii tunisie en jii partout eɗen gandi jaam gonnoɗo e ɗeɗe on leyɗele no ɗum wano deeje kono noon waɗama urɓu urɓu ha wayino way hande ni ɗum noon eɗen ñaago allah ɗin musibbaji yo allah hannan en ɗum toon yo allah ittan ɓeɗi hoto allah yettindi ɗo ko jiɗɗen ko président mo ganduɗa oɗo ko o feɗɗitani en lawol allah ferlini allah tellini ardigue e junggo muɗum pétrole yiita e leydi he gaz yiita e leydi he mata eɗen pandina ɗum pandinan ɗum pandinanen ɗum men hunde fof noon ma are nanne koye men wiye yen mbanni ɓe ɓooyi ɗo ɓe ɗuminini ɗo ɓe ɗuminini ɗo bandiraɓe nafoore way kono diine ni diine ko ɓooyine ko ɗum tan woni battane eɗen gandi miskino ko woɗɗodire e kefeero ko heewani allah woni koye ittande en miskinagu enen ɓiɓɓe sénégal naaɓe pétrole ari ɗo gaz ari ɗo ndeñen gadden jaam e leydi he kala gadduɗo ko wona yen gon ko makki wonno ko walla makki yamiri en ko ndiwen ɗum yaaha woɗɗo en toppitoɗen no leydi ndi moƴƴiri mata eɗen daña ko nafi en daña ko nafi mesguji men euh, lu tax ma wax loolu moo di yéen waa Podor o e découpage woni taƴitande administratif taƴitande no leydi ndi taƴiri laamu nguni no leydi ndi feccirani 46 département yi sénégal am 46 département gonɗi e nder sénégal ɗi yen donc yene ci am 22 maire o wi ko enen tan jogii heen 22 maire woni 22 commune 22 maire yangi koy am ci département podor kese cote dong ci sénégal o wi 22 maire alaa ɗo dañete e sénégal so wonaa ɗo e ndeer département de podor woni maire uji nogas e ɗiɗi nogas e ɗiɗi ko ɗo tan woni e ndeer 45 gonɗi e sénégal ɗi kala moo taxit o wi ɗum waɗi noon xam bu ko xam président de la république xam gandal ngal président andiri hono naa noon département de podor moo tax wax fa dëgg neex yàlla am naa ay xarit ci département bi de o wi so haaldude allah noon omo jogii sehilaaɓe tigi e ndeer département o ci équipe bi accompagné président de la République fii ci ci Podor o wi enen omo andi kadi woni sawndiɓe président équipe mo jogui e nder département de podor o mam ci suma xarit président conseil d' administration nga xam ne xamante nañu ëpp na 25 ans o wi musidɗo makko woni président conseil départemental oɗo henne mamou diaɓe gandodiri ko ɓuuri duuɓi nogas pawɗi depuis sones ba léegi o wi guila ene wiye sones suma xarit muntaga o wi musidɗo makko muntaga suma xarit Cerno Cheikh Oumar Cheikh Oumar Anne o wi sehil makko cheikh oumar an président abdoulaye daouda diallo o hono président abdoulaye daouda diallo suma jigéen ministre de la justice o hono bandi ko debbo ministre de la justice aissata tall sall ak suma xarit racine si bi nga xam ne ñoo bokkoon lycée o wi e musidɗo makko racine si mo ganduɗa oɗo henna e ko kamɓe ndenduno lycée kon fii bu ma fi yendoo wa duma ñàkk fu ma añee fi fanaanee duma ñàkk fu ma fanaan wadde ɗo so o ronkata ɗo wotti so hiiri ɗo kadi o ronkata jofi kon nag fi may daanele mooy o wi ɗo liɓirta konngol makko woni ñëw fii ci réewu futanke o wi arde ɗo e diwan futankoɓe oɗo nan jàppale leen seen doom o wiya on jaggane ɓinguel mon bu leen yaakaar ne dama sob o wi hoto cikke kon naatde e ko wona haaju mum de woni sababu o wawi bëgg senegal o wi yen paam ko yidde sénégal tan woni sababu o xam njariñu sénégal ak jàmm ak dal ak salaam ci loxo yooyu la nekk o wi e andude jam kisal e deejal koye ɗen juuɗe woni na ngeen fexe yéen tamit ngeen jàppale suñu candidat mooy amadou ba o wi enen ne yen tiinno jagganen koye men jagganen jagganen candidat mo cuɓana ɗen o saabu ko oɗon candidat joom guite menen cuɓani en ndax ko xam ni ki ay mbokk ma ko jàppalle o wi mo ganduɗa oɗo ko koreji mum jaggani ɗum jambo yi dañ koy ñime o wi jambureɓe cuusat joomum maa ngi leen di gërëm di sant leen balu ak